waaw xam nga man amul opposant boo xam ne état bi daf lay noggatu te seetiwu ma la waxuma ci dugguma ci loolu tamit cest à que mënuloo am euh, état démocratique buy am ay opposition yoo xam ne day faible wala dañ leen di nërmeel wala duñu mën a jóg démocratie ak opposition ñoo ànd su fekkoon ne man euh, dëgg-dëgg damay xeex pour man rek wax dëgg yàlla <laughs> yaakaar naa ne bu yàgg doon naa def comme ni ñëpp di def dem ñu jox la sa benn affaire munoon naa gënoon sax li ma am ci Nations Unies si sax mun naa ko may liberté suma liberté moo tax sax jéem dem wu nekk ay fonctionnaire international am naa capacité yi am naa politiquement mun naa am kii mais ba tey j'ai préféré être expert indépendant ça veut dire que su ma xoolee Nations Unies te xalaat am wax sama xalaat dama koy wax ko man liberté boobu laa am amul benn njëg boo xam ne moom laa koy jënde Idi ba mu amee problème rëbës gis na ma waxtaan ak moom ma jóge fa dem waxtaan ak Wade looloo yemoon looloo yomboon ci Wade da koy woor rek mu ne la kaay ma waxtaan ak moom looloo indi yeneen waxtaan yi ci xam ba mu génn. et Macky Sall ko. Macky Sall bi ko am bi amee problème <laughs> man assemblée nationale laa dem fekk ko ñu dem def suñu conférence de presse def ko rajo mais ñi mu daal ñëw xam nga Macky sax. ki ki ki noonu sax laa xamee madame Macky mu ne ma mais yow guerrier nga <laughs> avant moom ñëpp demuñu duñu dem avant ñu dem laa ko xam. c'est ce que Marème Faye Sall vous avait dit. mu ne ma guerrier nga dafa dama am taxawaay dëgg ci wetu Macky Sall ñi ñi nekk fii di wax di ma xaraj yëpp nañ dem xoolaat histoire bi. alors vous dites que. du du Wade pareil. Maître Abdoulaye dama ko doon seeti ba nga xam ni préfet Dakar dafa ne Waly Koly Faye moytul Alioune Tine Alioune Tine la. est-ce que am nga facilité boobu ak l'actuel chef de l'État. bon <laughs> bokkuñu tempérament. bokkuñu tempérament dinaa koy gis dinaay wax ak moom euh, récemment nee naa ko renouveler nañ suma suma kii mu envoyé ma lettre de félicitation ça fait même pas dix jours donc euh, dinaay waxtaan ak moom <laughs> dinaay waxtaan ak moom bon. mais approche bu gën a facile ba fële la gënoon yombee non wa Wade dañuy peut-être xëy dañuy yàgg parce que dafa def na vingt ans de quatre-vingt-huit ba bu muy dugg deux mille vraiment temps yi muy ñafe ak étape yépp doon mhm. nañ fa dem man la Wade jëkk ni Alioune Tine boo buggee l'Afrique aide l'Afrique ñu jox la ko boobu nekkagul sax pouvoir boobu dafa génn rek woo ma wax ma ko ni ma ko nag kaay ba defal ba ne ko ñun ñu ngi doog a créer rado d'accord <laughs> dañ koy dooleel donc ñun suñu xel ak li ñuy wax def société civile ak ni mu war a doxe xam nañ ko mën na am ñuy juum nag ñu juumee ba ñu ne yow da nga juum dañuy wax ñun dañ juum kooku du du benn problème